bi mooy bassin wu Kër Ñang bi dafa attanatul ndox mi nga xamante ni mooy ñëw euh, ci taw bi di jugee ci station pompage wu euh, marché Ocass di jugee ci station pompage wu Ndamatou ak ci station pompage wu Touba loolu nag bi ñu demee ba gis ni bassin bi attanatu ko ba ñu waxtaanee ñu ne lii ci xalaat mooy yokk ni muy manqué ndox mi ci bassin wu Kër Niang di ko indi ci ñaari bassin wu Daaru Rahman te diggante bi jàpp ci juróom-ñaari kilomètre ak genn wàll ba fukki ba fukki juróom-ñetti kilomètre li ci jiitu mooy yàq li bassin yi nga xamante ni fi la ndox bi di ñëw li ci topp mooy foofu ci Kër Niang ñu yokk capacité de pompage bi ba mu yegg ci ñaari junniy mètre cube ñu ñu ñu dolliku ci liñ doom pompe def ci ñaari tuyau yoo xamante ni day gën a gaawal ni ndox bi di ñëwee fii ci Darou Rahmane jugee bassin kër ñoom ñëw ci Darou Rahmane waaye dañoo jub màggal te ginnaaw dañu jub dëgmal màggal gi euh, su fekkente ni dañoo bëgg def liggéey bi ci niñ ko xalaatee mën na indi ay tolof tolof ci yeneen réseau yi maanaam ci réseau ndox bi wala ci réseau téléphone bi techniciens yi waxtaan ba juboo diggante direction générale ONAS ak seen direction technique ministre de l'eau bi nekk sama wet Serigne Mbaye Thiam jiite ko waxtaan ak entreprise bi ñu jox liggéey bi SVT bi ñu ngi ko defee démb sama bureau daanaka fa lañ yem ñu ni léegi lii solution néggandiku bi mooy dañuy def benn conduite benn tuyau boo xamante ni day jugee Kër Ñam ñëw fii diamètre 400 ak 500 ñu taqale leen bu ñu magaleeg jàmm ba noppi beneen conduite bi nga xamante ni moo nekk ci marché bi ñu teg ko waaye ñaar yëpp dañuy gas suul leen bu boobaa ba pare ñaari pompe yi ñuy tegandi ci leeg màggal ñu yokkaat ci yeneen ñaari pompe yoo xam ne ñeenti pompe lay doon boole koog ñaari conduite yi ngir mën a gën a euh, gaawal ni ndox mi di jógee ci kër ñam ak fépp koo xamante ni station de pompage la bu ndox mi jógee ci bërëb Touba di ñëw ci Kër Ñang ngir ñu indi ko fii ci Daaru Rahman loolu mooy euh, li nga xamante ni moo leen mën a leeral ci li ñu fi jëlee ci waxtaan waaye tamit ci ñëw nemmeeku ndax biñ ñu ko waxee wax ci ay kayit leeral ñu ko expliqué ko dafa jaadu tamit ñu ñëw gisal ba noppi tamit nemmeeku ndax liggéey bi tàmbali na wala déet bi ñëwee tamit gis nañ ni curage bi mooy dindi ban ak suuf si nga xamante ni mi ngi bassin Kër Ñang bi tàmbale